alors euh, Marcel euh, présidentielle bi daanaka ben at ak ñeenti weer képp mom mo ci des. Mhm. Euh, waaye fi ñu toll bari na bëriwul mais déclaration candidature yi moom tàmbali bari déclaration candidature yi tàmbali naa bëri soxna mhm. naata d'ailleurs ma lay ben ci xam nga ñaata candidat déjà ñom ñoo déclaré wu depuis lors. Mm, ah bah je n'ai pas <laughs> compté c'est justement euh, tout le sens de ce chiffre choisi muy juroom ñaar juroom ñaari candidat en tout cas à la date. Euh, d'aujourd'hui de ce mercredi 2 novembre nous avons di euh, jàpp sénégalais nous euh, annoncé li candidature à la magistrature suprême donc comme nous l'avons dit, un an quatre mois donc 16 mois donc avant cette échéance un scrutin justement dont le premier tour est prévu le 25 février 2024 donc ñuy fàttali que li nga date de dépôt caution euh, yooyu nonou te nga xamante fixé guñu euh, montant bi donc dañ koy nara amal euh, téméri fan ak juróom tout témer ak juróom fukki fan bala, donc élection bi di soit donc 5 mois avant ce qui probablement da fay coïncider à li nga xamante fin septembre 2023 mais xamna d'ici là dinañ ci gëna am ay ay en attendant donc désignation li nga xamante mom le candidat de la majorité ak te nga xamante ils sont il est regroupé au sein de Beno Bokyaka, en attendant donc également euh, la déclaration de la candidature ou pas euh, de Macky Sall pour un troisième mandat. Tenga agitait déjà le monde politique. Eh bien, euh, sept candidats comme ni ma ko waxee euh, ñoom ñoo déclaré jamono ji euh, te ñuy présenter, ku ci nekk plusieurs visages connus et un grand inconnu on y reviendra. Mm, mm, Inshallah, allah léegi mm. dañuy taxaw ci ki gën a ci candidat yooyu. ki gën a siiw ci candidat yooyu l'ouragan noonu lañ ko tuddee rumeur ak fureur bi nga xamante ne mu ngi daal di gunge li nga xamante ne moom mooy nemmeeku tour bi muy doxal jamono ji moom mooy firndeel rek. Euh, grand intérêt politique euh, Ousmane Sonko dit suscité sur la scène politique sénégalaise candidature à la présidentielle du xaaroon ko bu Khamantene a baax euh, date de son annonce lol Mom dafa daal Rekbet rek bett ñëpp ndaxte bi koy def maire de Ziguinchor daf koy officialiser ambition présidentielle dès le 18 août 2022 avec pour slogan donc focus 2024 mu 48 ans jamono ji inspecteur des impôts et domaine le Nekale, leader du parti parti euh, PASTEF, voire de l'opposition significative réunie au sein de Yewi Askanwi, nous est présenté à l'heure actuelle euh, comme euh, l'un des principaux favoris de 2024. Nui Fateli, pour sa première présidentielle, donc sa première participation à une présidentielle, c'était en 2019, son Sonko Leon Nietel, avec 687 523 voix sur 4 428 680 votants, soit donc 15,67% des suffrages exprimés, donc Moudali le troisième, derrière le élu Macky et donc euh, Idrissa Seck bi euh, deuxième présidentielle 2024 donc nara a nekk euh, bi nga xamanteni mom son Ousmane Sonko di donc la deuxième de de suite à moins que l'affaire Adissa on en parlait te nga xamante ni mu Saku, koy rek daf ko eh bien mu daal entraver euh, li nga xamanteni mom moy sa marche vers le palais de la république soxna Nata. Mm, alors ginnaaw mom euh, Marcel euh, gis nañ tam amna ñet ñett ñoo xam ne dañoo demoon dellu si waat. exactement les revenants <laughs> non lañ leen tudé donc gannaaw Sonko amna yenen mm. ñetti candidats yi nga xamanteni déclaré woon leen seen candidature en 2019 dal di koy déclaré waat donc pour pour 2024 Bougane Gueye Dany Malik Gakou et donc maître Abdoulaye Tin. euh, donc ñoom ñett revenants comme ni ñu leen tuddee nga xamante ils avaient un dénominateur commun ñu recalé woon. Euh, ku ci ndax euh, défaut euh, de parrainage Bougan Gay Dani, ci mom lañuy tambali mom nga homme d'affaires le patron du groupe des médias te ken dootu ko présenté âgé de 46 ans mu annoncé won candidature en sax élection législative bi passé bala mu koy donc officialisé le 19 août sous la bannière de son mouvement toujours Gum sa bopp non la ko slogan nak nag mu l'essor du Sénégal c'est maintenant en 2019 ñuy fatli que mom tamit bañ koy recalé pour défaut de parrainage de Fadal di rek rejoindre après le camp du candidat Idrissa Seck comme je le disais il a terminé deuxième avec plus précisément 899 556 voix euh, sur les 4 428 680 votants soit donc 20,51 euh, des suffrages exprimés nga jamono euh, il est fâché avec ñi nga xamante ne il est opposé à Benno Bokk qui finit à nekkoon taskatu qui ci radio, passé par Teranga Walf Aktamit Sud FM muy construire li son destin de présidentiable seulement il le fera en cavalier euh, seul euh, Sornanata. Euh, continuons ñu continuer à l'autre revenant donc Malik Gakou âgé de 61 ans administrateur de société le mou déclaré sa candidature pour 2024 ñetti fan septembre bi passé ne parti bi des alliances Alliance des forces de progrès et Mustafa Niass dirigeait donc l'AFP moom tamit muy présenté comme je le disais pour la deuxième fois après avoir été recalé en 2019 pour n'avoir donc pas réussi à réunir li nga nombre de parrainages euh, requis minimum donc comme Bougan, euh, mu daal di après d'aller euh, rejoindre le camp de Idrissa Seck d'aller di soutenir à la présidentielle mu slogan pour 2024 Mais je serai le prochain président qui va changer le Sénégal waaye mu am un challenge balaa 2024 bu mu relevé, relever lan mu débarrassé wu soupçon bi nga xamante ci dañuy c'est un pro Macky fu mu toll ça se colle à ses baskets de candidats comme un sale sparadrap mhm. donc naata donc continuer mm, avec les revenants avec Maître Abdoulaye Tine, l'avocat et défenseur euh, des droits de l'homme. Il a annoncé sa candidature à la présidentielle le 22 octobre dernier, un peu plus récemment. le euh, Ben, petit déjeuner de presse, euh, bimou organisé donc âgé de 46 ans Maître Tine que leader parti Bobo l'Union sociale et libérale UCL mu est créé le 28 décembre 2017 plus exactement donc mu deux ans plus tard déclaré au candidat en 2019 séjourné et ajourné également également euh, pour défaut de, de parrainage mon nar a par la suite la figure de proue lutte bi nga xamantene combat bi nga xamantene ne daldi ko euh, ci walu wàllu euh, ci lu jëm ci walu anti parrainage daal di traîner sax l'état du Sénégal de tri, de tribunal à tribunal bu mu yegg ci cour de justice CDAO cour de justice CDAO daal di koy finalement euh, Dior euh, Raison, son ambition présidentielle, lutter contre l'inaction et l'inertie afin de changer le Sénégal. Hmm. alors nous taxawaat ci keneen Marcel kan mhm. alors nous taxaw ci ñi euh, hmm. nga a l'aspirant le docteur Abdourahmane Diouf plus précisément moom nga euh, à l'occasion du premier, euh, premier anniversaire parti BIMI euh, dirigé te donc il y a un an naturellement Andou watu Askanui awale donc ce docteur en droit qu'à expert en négociation commerciale internationale d'aller annoncer sa candidature à la présidentielle sa première parce que faut dire que à la présidentielle 2019 docteur Abdourahmane Diouf porte-parole du candidat Idriss Seck comme slogan pour 2024 Abdourahmane Diouf président 2024 Sénégal d'abord dot pays, c'est bien cela donc euh, son ambition mu Moundal, il est le Sénégal il le candidat de la sénégalisation du Sénégal Mou toll jamono ji ci euh, juróom fukki l'ambitieux rufisquois donc jóge ci euh, Rufisque te nga xamante ne échec relatif avec sous la bannière de la coalition Dar Sénégal lors des législatives mu quelques mois pour faire rek bâtir une réelle base politique soxna Naata. alors Marcel bu qui ñi bettul kenn am ñoo candidature 哦。 ñu ak loolu. exactement donc amna ñoo euh, les surprenants C'est une candidature bêtement euh, ñi nga l'opinion en tout cas euh, mm. sénégalaise Ali mom lañuy commencé mom mi nga il est l'une des grosses surprises de cette liste de candidats à la présidentielle ñu gis que c'est également le plus âgé ndaxte mo ngi 68 ans l'ancien magistrat bëgg la magistrature suprême ça peut aller le soir parti politique bi mu parti pour la justice la démocratie et le développement PJ2D retraité depuis 10 2019 à Ndao euh, Ken gisatu ko woon la scène euh, politique notamment mon mi nga procureur spécial euh, de la CRI, donc de la cour de répression de l'enrichissement illicite ci vois traque des biens mal acquis procès Karim Wade au cours duquel il a été donc débarqué en pleine audience donc le voilà revenu presque à la surprise générale d'aller annoncer donc candidature pour 2024 a un entretien du mou amal ak suñu qui les échos édition 24 octobre bi passé mon décision bi il va être le candidat euh, à l'élection présidentielle de 2024 Mouy ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome la rek ngir mu Dal di koy jox li nga récépissé ngir activé ak euh, cette autre forme de politique dont a besoin le pays on va terminer par l'autre le plus surprenant peut-être ki nga xamante ne euh, si je te mm-hmm. dis Mohamed Ben ça te chante un petit peu mm, ça te bah. parle Cher Tidiane <laughs> Malik, Chérif Mohamed Ben j'avoue que non. Ah, voilà passe passe il nous donne déjà un indice Chérif euh, Mouli di ah. euh, candidat surprise euh, comme nous inséré wu liste candidat donc qui se sont déclarés pour 2024 Mohamed Ben Diop leader du parti passe passe constitué depuis plus d'un an selon ses dires Mohamed rek nga ambition président du Sénégal Ghana Ben, entretient avec le quotidien L'Observateur dans son édition du 8 août 2022 Mohamed ingénieur financier le consultant en système d'information nekkaale expert reconnu par la Banque mondiale dans le monde du transport il est âgé de 46 ans n'est nee n'est à à pouvoir n'est connu à cette opposition cette manière de def politique ak opposé wu mooy rek djem ci l'essentiel jeter les bases euh, du développement du Sénégal de demain dixit Mohamed Mohamed Ben Diop euh, donc à travers les colonnes de l'Observatoire du 8 août 2022. y a plus que 16 mois merci beaucoup euh, Marcel mm-hmm. Farba Maroun pour ces détails alors ñu taxaw ci tout rek laataa ñu dem RFM Aladji Malik amna ñu bari ñu fi Marcel wax ñoo xam ne demoon nañ dellu état bu parrainage mo len seggoon ndax jàpp lan mo changé ci digënté bi ba bi di ñëw xañ nañu am war bokk dañoo jàpp ne leen la nga donc c'est des ambitions politiques politique mais mm, sa ambition toujours nga affirmer parce que tey sénégalais te de tes droits euh, civiques am nga sañ-sañu président de la république mm. Nous ñi ngi ci politique bi seen de suwat parce que ambition est amé ben échec warul tax nga hmm. donc nous ñoñu nga revenant hmm. c'est clair que nous sommes dans une euh, dynamique

Sénégal nag saa yu jëmee ci ay élection di nga gis ñoo xam dañuy fëgg seen dënn jóge bitim réew kenn xamu leen ñu taxaw fii ne dama bëgg nekk candidat alors que candidat présidence de la république dafay lu sérieux

génn ko parce que dina am ño xam ñi ngi seen ginnaw ngir mm. boot leen ñu dem mais bu neew ba ci cëppaandaw ga ku ne xam nga kan moy kan merci beaucoup euh... bon même Alioune ce sera la même chose parce que ñi ko fi xam ba moom bon bo xolé candidature am bett na ñep candidature do frustré la parce que nimi mu gis nga ko mi ngi nan leen ma jox sama ki et cetera di régler ses contextes da alko du lol mom motax nit ñi mëna nek candidat fi ci Sénégal bu dé da nga am projet fi ci Sénégal ci dafa am itinéraire bo xam te war nga fa mëna jaar mais bu dé yow kessé la to ko ne xam na ni fi coalition yi sax ñom ñu ngay am chance pour nek gën a jàll mais bu fekkante ni da nga yor sa mhm. parti wala di wut ab récépissé mm-hmm. goo a mm-hmm. dañuy ñëw dem fële ca RFM waaye ab xibaar bu ñu euh, dab léegi certainement dinañ ci ñëwaat ci kanam muy génnub àdduna Bass Diakhaté nekk nekk artiste euh, comédien bu mag a mag ñu ràññee fii ci réew bu Sénégal euh, dinañ ci dellu si certainement ci ñaareelu pàcc bi incha allah ak Cheikh Tidiane ci xibaar yi dañuy ñëw dem fële ca RFM ñuy dalal tey jile mooy directrice bu Radio France internationale RFI ñaareelu pas.